5M TV Sénégal yi siifur 5M TV Sénégal dal leen ak jàmm Ahmed Aidara maire de Guédiawaye moom nag ginnaaw ba nga xamee ne dafa génnoon ci manifestation yi lañ ko téye woon ci ginnaaw bi nga xam ne dafa demoon di liggéey nag moom lañ ko téye woon moom nag Ahmed Aidara tey ji ci àljuma ji ci ñaar fekk fan ak ñeent ci weeru juin ci atum 2022 moom nag dañu ko bëggoon a àtte nag ci noonu ci lañ renvoyé projet bi ba le 27 juin 2022 muy bis bi nga xam ne ci lañ war a àtte ki nga xam ne moo di honorable député Mame Diarra Fall ak ki nga xam ne moo di Déthié Fall moom nag Ahmed Aidara ginnaaw bi nga xam ne dañoo renvoyé projet bi ba le 27 juin 2022 ki nga xam ne moo di Assane Diouf ginnaaw bi nga xam ne ndaw yi bëggoon nañoo amal manifestation ci noonu nag ci la janoog taskati xibaar yi yëkkati ay kàddu di wax ne bu kenn def dara nañu bàyyi ba le 27 ñu ñëw bu kenn yàq dara ndax fii kat lu ñu fi yàq rek Ahmed lañu ko yàqal. loolu nag ngeen di gis ci image yi nii ndaw yi di wax libéré 5M TV Sénégal